sabab dajé bi nak sabab bi moy ki tax ñu lal malaanum wasifa mi moy sunu mam sen bay Mouhamadou ndjay yalla dafa defoon mu nekkon ko xamni tabarakallah ku jeexon tak la ci walu l'islam ci walu jang alquran ci walu lepp lo xamni sinu li lu dund doomu adama la fa tabarakallah yalla defna taxawal na ci temm muy jàng alquran fa tabarakallahu dem tool ak di ko jàngale loolu dundam yépp loolu la woon koo xam ko ko xam ci loolu nga ko xam fa tabarakallahu kon tey bu demee ba ñaar fukki at bi ñu tàmbalee def ñaan gi boobaak léegi dem na ci xëy na daan nañ ko def lu ko jiitu sax waaye sëtam yi nga xam ne tey fekkew ci bari fekkewuñu ko ñoom ñoo ne dañoo bëgg comme xamuñu sunu maam dañoo bëgg bés boo xam ni dina daje ñun ñëpp ñu daje fa fàttali ko ko di ko ñaanal loolu bokk na ci yi sabab bi moom nag bu may wax ci moom du sori waaye xam naa ni li ma wax nii loolu moo ci nekk Tiwaawan gii nga xam ni tey moo tax ñu laal masaan fi la jokk gëm Sëriñ Babacar Si gëm Sidil Xaaji Maalik ak njabootam taxaw ci temmit ba ñoom ñu ràññee ko goo xam ne ràññeeku gu gu jéggi dayalo ndax da daan toog fi ba yàgg Serigne Babacar Sy radiyallahu taala yónnee ndaw woolu ko ñu woo leen ma sëñ Mour dama koo soxla mu jog dem fu mu xasee dégg baatam nag amatul soxla waaw ba tali amul yoon amul nii la daan fetal dem tabaarakallaa bu demee sëñ Babacar wax ko li koy wax mu wëlbati ko waat dellu kon kooku. nekkoon na koo xam ni léppam sëñ Babacar Sy la kon bu demee tey ay njabootam taxawu ko noonu dina am solo maa ngi ciy nettali magay fan yee bi mu feebaree ma jël ko yóbbu ko Tiwaawan mu enterré Tiwaawan soxna sukkan yal na yàlla yokk leeram taxawu ko bi mu nekkee Tiwaawan ba lu war mu def ko bi ñu demee ba feebar bi xaw metti nag mu téléphoné Sidi Ahmed Tidiane si Al Maktoum ni ko ah, sa góor gi yaram mi de neexul parce que bis bu ne dang koy jox borom loolu motax may wax li kon nak fexel nu ñu ko faje bu téléphoné seigne pap malik si ni ko góor gi yaram mi dafa tang entré nañ ko tiawal waye taxul mu am tan waye dama bëgg léegi ñu yobbu ko Dakar sëñ Pape la gis Moussa Fall Anto Fall mooy papay umu xayri Fall ak Seynabou booba taxi la yor ci tënk rek ñu yóbbu ko la Dantec entré ko service autorino yaakaar naa mooy ñi yore fee parce que feebaram côté bii la woon waaye ci gàttal rek ma gay benn alxemes ca fajar mu woo ma mu ñëw mu ni ma sëñ Babacar ma ni ko ma ni ko si mu ma dafa mel ni nag mag ñi am na lu ñu ma wax nee nañu ma man du ma faatoo hôpital naa génn ma ni ko ah, góor gi loolu ëpp naa def di parce que docteur yi ñu ngi ci yow bilaa bi pareegul mu ne ma loolu daal dëgg la waaye ñi wax ak man daal ñoom laa gën a gëm seen wax alxames ci ay cinq heures matin bi ñu demee ba dix heures sëñ Pape Malick caatu sëñ Babacar Si gaare ci buntu hôpital yi ni ko sëñ Cheikh moom ma yónni ma demoon seet góor gi ñu nettali ko ko ñu ne sëñ Pape man maa wax na dëgg góor gi bu la waxee loolu wax na dëgg ndax bu la waxee loolu asamaan si dix heures jot ma ñëw fi sëñ sëñ sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si yónni ma tegtal la ci li wax dëgg la kon nañ ko génne fa tabaarakallaahu daal di yabalaat sëñ Pape yi moo yabalaat. Moussa Fall papa ñoom um xayri mu yor oto ni ko jëlal góor gi nga yóbbu ko delloo ko këram ñëw na fii ci këram tëdd na fi diir bu yàgg waaye ci lalam bi la faatoo te loolu la waxoon kon nag ñu xam ni moom boroom cër la yàlla dafa dogaloon nag mu nekk koo xam ni ku modeste la dafa nëbboon boppam soxlawuloon feeñ ci dara lu mu mën a doon rek daf koy def discrètement bu dee jaamu yàllaam ak léppam soxla wu ca fes soxla wu ca dara sell ak sellal rek gëm sëñ Babacar Sy nag gëm alquran te di ko jàng di ko jàngale kooku fa tabaarakallaahu li nu xam ci moom bari na lool yal na ko yàlla yéege ca barsaako yonent bi sallallaahu alayhi ndax liggéey na ko jëf na ko maa ngi koy wax xale ma leen amoon na benn jàllaabi jàllaabi bu rafet boo xam ne sëriñ Babacar si moo ko jox sëriñ Mbay Sàll papay Seyna bu Sàll mi parce que moom njabootam yëpp ci biir kër gi la leen joxe ni ko joxal ma ko góor gi nee ko mu di ko barkeeloo jàllaabi ma man mi maa ko yor ndogo la ca am fa tabaarakallaahu ñu jël ko ki ko jël delloo siwu ko fa tabaarakallaahu mu métti ma lool nag ba ba fii ma toog yow dama koy méttilu waaye noonu la noonu la yàlla dogal su ko defee rek ngeen baal ñu xëy na dañ doon wax tuuti ci góor gi noonu rek waaye li des nag ci délégation bi ak ñi fi teew magay mi nga xam ne si ni moo yore mooy porte paralu famille bi incha allahu taala dina ci jaar suñu demee ba ca ngoon nag luñ ci mën a mottali ñu mottali ko ci ñu ngi sant ñëpp ndi gërëm ñëpp ah, maire monsieur le maire Alaaji Asan kii dina ci ñëw laaj Assane mooy maire waaye ci la bokk Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax sa taxawaay démb ak tey parce que wax naa ne ne négo ba nekk maire di soog a taxaw ci bokk gi ci famille bi ci dëkk bi def nga ko lu yàgg soog a nekk maire bëgg démb nga nekk maire te loolu ba nga juddoo ba léegi ci loolu nga nekk fa tabaarakallaahu kon ñu ngi lay masaw di la ñaanal yàlla yal na yàlla yokk sa cër yal na yàlla yokk si cër li nga bëgg yéene ko yal ko yàlla defal di nuyu tam sa mbokk moom nga dendal muy xaaji Moustapha Sarr tabaarakallaahu moom it ci famille bi la bokk comme ni nga ci bokke am ci taxawaayu démb ak tey la ca des nag damay bàyyi ndax loolu domaine nu nu jaamur la ma yi dina ci dikk mottali yëpp loolu rek moom moom moom mooy li nga xam ne moom laa ci doon wax di nuyu nag ñii nga xam ne tey maag ñoom ñoo bokk musi TV bu Seydi Mustafa Si ndax di yàlla dogal nak mom lunu lunu lunu la lu nu laax feddili ko ca nag ndax moy sun lepp nak a ah, loolu Yalla dogal nak kon nak bu fekke bes bu melni dafa am mu yabal délégation musi TV ni len dem len lu suñ Babacar soxla ngeen def ko ngeen and ci ak mom lolou ma koy réy na sans condition nak ndax man dama jékki gis len rek kon nak lolou na jaadu ñu seedeel leen ko ak yeneen délégation yoo xam ne ci moom la bokk muy sëñ Moustapha incha allah ñii ngi fi ñii dina ñëw buñ demee ba nga ca cérémonie ba dinañ ko mottali ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa koo xam ne nag moom duma ma ko tudd Seydi Hadj Malick Maodo organisation bi mooma parce que dama ko sisir maa ni ko gis nga tey organisation bi teg naa ko ci sa loxo mhm. du ma leetar du ma wax kenn dara dëkk baa ngi ba dëkk bi daj kenn tawuma ci kenn wax ko moo wax ñëpp di téléphoné di yónnee di def lépp kon nag moom ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax am ñoo xam ni nag nga baal ma ma tuddal leen sama bopp ndax dama bokk ci danoo danoo bokk ci ñaari famille famille Ahmadou Sarr Kumba Dem waa Caareen waxuma sax de ñoom Mouhamadul Bachir ñii waaye ñi ñu nekk Thiès fa tabaarakallaahu seen délégation ñu ngi nii toog ñooñu moom maa leen di tuddal sama bopp ndax dama yàgg ak ñoom ñooy ñu baax taxawu ma jàppale ma dimbali ma fu ñu toll Mouhamadul Bikri ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di la yóbbanti ci sa jigéen ñi xam naa dina bu ngoonee dina gën a yaatu waaye rek toll gu ma ngeen tol jot parce que man dinaa koy wax ma caareen dama leen a bëgg fonk leen ndax wax dëgg yàlla dañ cee bokk ci ñaari côté nu ñëpp nag ñun ñëpp ah, fii tey fii tey caareen fii mooy seen cosaan ndax ki nga xam ne moo sot lépp moo meññ ñëpp di Mamadou njaay fii la bokk kon nag loolu ngeen baal ma loolu rek laa ci doon mottali ma bàyyi magay mu yàggale li ci des. waaw man yàlla dafa def euh, ziar bi ñu dajale fii tey ñoo ngi ko def si ñi def mu nekk ñaan fàttaliku suñu maam bu ñu wax Mamadou Ndiaye ñu gën ko xam si Modou Ndiaye nekkoon taalibe sëñ Babacar nga jege woon yàlla def na mu feebaree euh, Cheikh sëñ Cheikh yónni Pape Malick mu dem seeti hôpital mu génnee mu génne suñu Moustapha def na fi conférence ba tey kon nag ñu dellu di sant bu baax jaboot ci daal ñuy wax nag foofu laay commencé parce que loolu lañ ko xam daal di jeex la woon imaamu raadi xam ah, mu génnee àddina bi ñu def ziar bi kon yàgg na suñuy papa ak suñu nijaay amee ko ba tey ñu si bëre tey jiitu ji mbir mi ñu tekk suñu loxo ñun nga ni ñooy ay doom sës si ñoom buñ fa jógee ëllëg si biir suñuy doom ainsi de suite ainsi de suite liñ si jublu rek moo ñaanal suñu maam ak njabootam ak famille yu yëpp da yàlla def na suñu maam Mamadou Ndiaye gànjool gànjool la mu jógee gànjool ñëw yàjjin yàjjin bu mu ñëwee yàjjin nijaayam daw Fatim nekk fii si càll gi Sall mu indi càll dem jëli ko euh, yàjjin indi ko fii si càll mu nekk imaam amee fi daara waaw loolu lañuy ñuy at mu nekk ba mu génnee àddina ak léegi mu toll si euh, lu ëpp trente ans. léegi léegi ñu bëggoon a xam ba xam ziar bi ngeen koy organiser dafa nekk initiative boo xamante ni jël diiru ñaar fukki fan ñaar fukki at yi nga xamante moo nekk bu ni wala da ngeen ko commencé depuis mu génnee àddina ba léegi. si jàpp ba mu génnee àddina ba léegi ay doomam. ak seen i frère seen sœur ñoo ko doon organisé ba si nijaay Babacar Ndiaye ah léegi mag ña ko mag ñi fa nekkoon doon ko organisé kenn nekkatu fi ñi sësoon si ñoom nekk seen rakk di Serigne Babacar di Serigne Malick Maodo ñu nekk fi si Thialé mag lañu ñu wooñu ñun ñi nga xam ne ñooy seen doom seen jarbaat ñu ni organisation teg nañ ko seen loxo léegi ñu itam ñu koy doxal nii loolu moo waral tey mbir mi nekk si loxo mais mag ñi ñoo ko fi tegoon en tant que responsable famille mam Mamadou Ndiaye mm. nga nekk wëlbatiku nekk tamit di gérer tamit li nga xamante ne mooy organisation bi mm. euh, ziar bi da ngeen ni ñaan yàlla di ko continuer muy nekk chaque année wala da ngeen ni ñaan mu dem bay nekk par exemple parce que li ñu gis fii dafa mel ni que ni gàmmu moo fi am wala magal waaw xam nga euh, niñ ko tërale rek organisation bi ba mu ba mu ëpp na juróom ëpp nañ euh, vingt ans dañuy ñëw yendu wacce kaamir wasifa ñaan suñu añee ba pare mooy programme bi ñëw nii ñu dugg si famille bi waxtaan ndax famille ñëpp fépp lañ jóge ñu am nañ jóge waalo ñu jóge Gànjool raw Sakal Foundiougne Xombal Dakar Thiès Tëngéej Sébikotane Mbacké famille bi yëpp ñoo fi daje su ñu ñëwee nag dañuy famille bu nekk ak sa maam Ndiaye euh, benn góor la woon bu xam ni ay jigéen rek la ko yàlla la yàlla mayoon suñu maam suñu maam ma Njaay Njaay mën naa wax lu bëre si moom ndax moom ak maam di aju Malick si nii lañ ñu meloon waaw dama damay tëb rek damay gàttal alors su euh, maam ma ma Njaay boobu euh, maam Modou Njaay doomam la maam Modou Njaay ay jigéen rek la am ay sœur waaw ak ay doomu baay ñu am njaboot njaboot bi dafa yaatu macha allah njaboot dafa yaatu at mu nekk nag bu ziar bi ñëwee njaboot gi dañuy daje ñu gën xamante si biir waxtaan si biir famille bi wax diw ak diw lu ñu bokk diw ak diw luñ ñu bokk loolu moo ñuy occupé ba ñu julli tàkkusaan waxtaan aussi si démb suñu maam yi nañ fi nekk woon su tàkkusaan su tàkkusaan jàllee rek ñu dugg si waxtaanu causerie religieuse ren thème thème thème causerie religieuse bi mi ngi nekk si mbokk si biir l'islam l'islam nan la gisee mbok jox ko mbokk waaw a ah, nee ñu mag ñu baax ñu wax nañ ci lu bëre waaw ma ma suñu suñu wasila suñu suñu sëriñ euh, sëriñ Abdou Aziz Dabax Malick daan wax toujours euh, bu ñu waxee nit baax na mu ni na maandu leen si ndax mbokk yi ñoo ko wax wax ñu bëri si lislaam si mbokk ak lislaam mbokk ak mbokkam mbokk ak dëkkandoo ak dëkkandoo yooyu yëpp lislaam daf ci wax te bu ngeen xoolee jamono ji ni mu tëddee c'est des valeurs yoo xam ni ah mi ngi tuma mi ngi tumaay ci tumuranke ñun nag suñu njaboot dañ leen si dañ leen si yar bu ñu ñëwee fii man samay doomam fii ñeneen seen doomam fii seen seen si taal fi ñu wax leen diw ñi ngeen bokk diw ñi ngeen bokk ñi ngeen bokk ñu jokkali ko jëlante numéro téléphone rester en contact kooku benn parti bu importante lañ si si si si ziar bi bu ngoonee nag ah ñu dugg si causerie religieuse ah ak suñuy suñuy suñuy suñuy jàngu euh, taalibe ah ba mu rëcc ñu reeree moom mooy mooy causerie bi mooy teem bi mu la wax leen léegi euh, euh, mbokk ak àqu dëkkandoo si biir l'islam bu ñu demee ba reer ba bu ñu demee ba julli timis reer continuer nag euh, gàmmu gi ba minuit waaw loolu mooy programme macha allah papa li nga wax rafet hmm. waaye en tant que euh, ni nga nekkee parent. Hmm. nga nekk sët ci maam Mamadou Ndiaye. Hmm. nekk ñu wëlbati ko tamit na nekk di gérer ñu nga xamante ne ni ay sët lañ ay sëtaat lañu. ban conseil moom nga leen di jox. ak lan moo nekk li nga xamante ne sa kàddu. lii nekk sama kàddu ak conseil maa ngi koy commencé si man mbokk man mii nit da fonk sa mbokk. ganaw ba nga gëmé yalla gëm yonante bi gëm téré bi fonkal sa mbokk li jitu ci mbokk nak moy say waju sa nday ak sa baye waw man ki ma jox euh, euh, euh, nu mu tudd ki ma jox salaatul fatir muy serigne babakar si al bu Mansour serigne Mansour moma ma jox moma ma de man Colobane kërëm bi nekk eh, eh, Gueule Tapée bi ma ko bi ma joxee weer dafa pare ma duggi sama ma dugal sama lox sama poos di ko jox mu ne ma an sa papa mi ngi dund ma ne ko waaw an sa yaay mi dund mun ma mu ne ma ñoo ma ko gën yàlloo c'est un exemple moo ma la koy cité cité ma pour wane sama bopp de déedéet dama cité parce que leçon boobu ma wax an papa mi ngi dund man nga waaw mun ma an sa yaay mi ngi dund mun ma moo ko gën yàlloo jox leen kat ki nga toppatoo leen conseil bu am solo loolu laay dollu di conseiller njaboot gi nañu fonk suñu waajur gannaaw suñu waajur nañu fonk suñu mbokk nit amul lu dul mbokkam loo defandikoo woon effort boo defandikoo woon dem di bëgg a ànd ak mbokku jàmbur boo si góorgóorlu lu tuuti mën ànd ak say mbokk te ëllëg sibér kat boo fi génnee dañaa ana ay mbokkam ana ay mbokkam waaw ñoo lay mujj ñoo lay mujj dugal si pax kon nit war na fonk mbokkam ñun loolu la ñu gëm fonk kon xale yi ñoo ngi leen di conseiller au delà suñu njaboot au delà famille maam euh, sama maam Mamadou mbokk jullit yëpp ñoo ngi leen di conseiller gannaaw ba nga gëmee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm téere bi fonkal say waajur fonkal say mbokk ndax ngir amul lu mbokkam fonkal say dëkkandoo ndax dëkkandoo yonent bi sallallahu alayhi wa dem na sax ba ñu yaakaar ni dëkkandoo day doon. ci première leçon bi nit di am mooy li ñuy wax ci français cellule familiale. foofu la yar di commencé bu dëgëre rek yar ci koñ bi dëgër dëkk bi dëgër Sénégal dëgër àdduna bi dëgër asalaamaaleykum wa rahmatullah ahousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk Mourchid FM Tivaouane ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax nag ni tey dañu ñëw fi nga xamante ni mooy càlleel daal di ñëw ci ziar bi nga xamante ni moom lañ jagleel ki nga xam ne mooy seen maam Mamadou Ndiaye ma ñëw nag fi nga xamante ni mooy ci seen waañ bu tarkallawe bi daal di fas yéene ki nga xamante ni mooy sunu tata mooy li nga xamante ni mooy responsabilité cuisine bi ma fas ko yéene laaj turam ak naka la gisee li nga xamante ni mooy seen ziar bi <laughs> waaw man la Fat Diop Ndiaye doomu Baye Maodo Ndiaye Maodo Ndiaye mu Mamadou Ndiaye ma njaay Ndiaye njaay sendeer ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu àq ñëpp di am kontante lool nag ci suñu ziaru maam bi macha allah wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool di sant suñu waajur yi di ñaanal suñu maam di ñaanal suñu mag yi ak suñu rakk yi macha allah kontaan nañ ci ñëpp wax dëgg yàlla. tata dañu bëggoon a xam naka ngeen euh, seen ziar bi dañu bëggoon a xam euh, exactement lan mooy objectif bi parce que dañu gis que ni année yéen a ngi organiser ziar bi tey mu nekk édition bu nga xamante ne ni la daanaka mi ngi ci ñaar fukki at ñu bëggoon leen a laaj yow lan moo ci sa xalaat. a ah, sama xalaat de mooy ziar bi moom yokkute la rek ndaxte suñu maam moom wax dëgg yàlla. dañuy dañ ni jëf na jëf joo xamante ni nii moo tax mboolam foo xamante ni sëtam nekk na fa ak doomam ñu ñëw fii di ko ziyaara di ko ñaanal loolu moom nañ ci seet jàngat daal ñu xam ne nii ak mu ne buñ ko defee rek ren bu déwénee dañ ciy gis suñ bopp gis ci yokkute looloo tax ñu bëgg mu dem ba doon gàmmu ñëpp di ci joti macha allah. macha allah rafetlu nañu kàddu yi ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax. waaw Mamadou Ndiaye moo jur sama yaay sama yaay Khady Ndiaye mooy taaw Mamadou Ndiaye bu jigéen. ginnaaw Aida Ndiaye bu bu si Bukutaan sama yaay moo topp ci moom si mag. léegi maam dañu bëggoon a xam euh, naka ngeen gisee li nga xamante ne mooy seen ziar annuel bi ngeen organisé tey jii. suñu maam bi xanaa am yaakaar ci moom yàgg ko yaakaar dëkk bépp yaakaar ko réew mépp yaakaar ko na am yaakaar ci moom lool di maam ju baax ju am lislaam ju am diine di daal bi sëñ Babacar bu bëgg sëñ Babacar bëgg njabootam waaw loolu moom lañ am di am yaakaar ci moom lool loolu moo tax. léegi yéen seen i seen ziar bi da ngeen di ñaan mu nekk muy continuer chaque année wala da ngeen di ñaan muy nekk gàmm. muy dem danoo bëgg a ñaan mu yàlla dem ba doon gàmm nu koy gàmm tuddee ko ko waaw nu tuddee ko sunu waajur yu baax ñu tuddee ko ñu wax Adja Khady Ndiaye Adja Khady Ndiaye bu Mamoudou Ndiaye di Ndiaye ma Ndiaye Ndiaye farama ma ndeer maa ma cee gàncax pare ne ko Serigne Mamadou Ba Mamadou Ba. doomi ay sa Dieng Ndiaye ay sa Dieng Ndiaye Moodu Ndiaye Moodu Ndiaye moo Ndiaye Ndiaye faramasa ndeer maam dañu bëggoon rek nga li ni sa kàddu sama kàddu conseillé xale yi nga xamante ni ñooy sëtu maam Mamadou Ndiaye ak sëtaat yi ak sëtaat yi li may conseillé sët yi ak sëtaat yi ma bëgg ñoom ñëpp ñu roy ci waajur yi nanam waajur yu baax sunu nijaay yi bëgg seeni jarbaat lool commencé ko ca maam Moodu Ndiaye ba ci ay sëtam ak sëtaatam ñëpp bëgg suñu maam ñaan yalla def jamm ak salam, nu dem ba suñu sët diko def. lan nga ci ki nga xamanteni moy mam Mamadou ndjay wa man may Soxna Dieng dom ci marem ndjay marem ndjay mom moy tiatu mam Mamadou ndjay wa mëna wax kan yow sët direct mam Mamadou ndjay man mom sët direct la ci mam Mamadou ndjay léegi yow tay li nga xamanteni moy anniversaire bi dañ la ci bëggona laacc euh, laka nga ko lan mo ci sa gis-gis dal yow. ah anniversaire bi mom contane ci lool rek di ñaan mom chaque année rek muy gën di neex. waaw ndax suñu maam moom yaakaar naa moom ku ne xam na ko waaw lépp luñ ko defal itam xeeb nañ ko torop di ñaan rek chaque année rek muy gën a neex waaw ñu gis ko ni mooy presque yéen a ngi dugg ci li nga xamante ne mooy ñaar fukkeelu édition wu am gamu ziar annuel bi nga xamanteni mom ngeen jël di ko ki nga xamanteni moy sen mam ñu bëggoon laaj leen rek yeen ba xam da ngeen ko daan def chaque jour wala da ngeen daan nekk di teubal ay at wa dañ ko daan def chaque année mom dañ ko daan def da ngeen ko daan def muy nekk conférence ni ngeen euh, def ziar euh, euh, def li nga xamanteni moy wacce kamil ngeen di préparer li nga xamanteni moy conférence wala da ngeen daan ñew rek daal di defal ko ñaan yendu ba ngoon ku nekk daal di delu wat wa dañ daan def chaque année rek ñu defal ko kamil defar ay laax waccel ko kamil fami bi yëpp ñew waye nak sama ndijaay manam maanaam sama magu yaay ñom nak ñu yaatal ko lol ba legi kep kuy ko ci mam Modou ndjay rek ak mam Ma ndjay ndjay fami bi yëpp dañuy ñew dajé wa ba affaire bi yaatu legi mom machallah mën na ni dal gamu lañ koy tuddé instant bi jërëjëf soxna ñoo ngi jégalu bu baaxa baaxa baax légui nak ma ngi sant sama mag yi mako ko bokkal muy El bati Bàcci ak Magay Ndiaye Ndey khadir Sall ak um khairi Fall Seynabou Fall ñun ñepp daal ñu jël ñu ak Faat Joom Ndiaye mi tek ñu ci kanam wax deug yalla nekkul ñu ñoo fi gëna nekk jambar waye rek tamit kóolite giñ am ci ñun rek motax waye ñun ñepp ay jambar lañ ñëpp ñëw fi gis rek ay sër direct lañ waaye yàlla na ñi ngi ñaan daal yàlla na yàlla def jàmm mënuma wax nag moo tax waaye waaw ñu fi taxawal ki nga xamante ni tamit sunu tonton la moom dafa mel ni que ni dafa bokk ci li nga xamante ni mooy organisation bi tonton tur bi naka la Assane Salam lañ koy wax Assane ñu bëggoon a xam ba xam yow sët nga direct ci maam Mamadou jaay waaw man sët laa direct parce que maam Mamadou Ndiaye moo jur sama yaay sama yaay Ami Ndiaye waaw gis ni yéen yéen a ngi nekk li nga xamante ne mooy organisation bi bëggoon nañoo tamit leeral leeralal ñu ba xam euh, ñaar fukki édition yi nga xamante ne yéen a ngi ciy waaj a dugg koy daan def chaque jour wala da ngeen a toog tey ji rek turubel seen bopp initiative bi pour gën koo yaatal waaw daanañ ko def chaque jour nag daanañ ko def mais am na ay jamono yu bari comme feebar yi fi amoon moo tax amatul ba taxoon ñu bàyyi ko waaye suñu maam boo gisee lii tey dafa defoon liggéey bu rëy ci alxuraan doon doon mu xadamu sëñ Babacar si ci alxuraan moom boo koy jàng rek bisa ngi ñëw suñu borom da lay fay moo waral lii moo waral lii daa daara di jàngale alxuraan képp kuy yëngu ci alxuraan rek yor di jàngale bisa ngi ñëw suñu borom da lay fay mbootum alxuraan na tey moo waral lii moo waral tey moo am bis bii ca ca kanam la jëm lii ab siyaar la woon léegi weesu na ab siyaar léegi ak ak màggal la ak màggal la kon daal yéen sët yi daanaka mën nañoo wax que ni yéen yéen a ñaan di continuer li nga xamante ni ziar bi wala da ngeen di ñaan yàlla mu dem ba nekk ay gaam dañuy ñaan ni mu mel leen nii bu déwénee mu man ko mu mel lu ko raw fuuf te loolu incha allah gis nañ ko gis nañ ko waaw wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax ñoo ngi sant ñëpp di sant kilifa yëpp waaw yal na yàlla fay leen yéen tamit taxawaay bi rafet na maam moom lañ duppee maam Mamadou Ndiaye ba taxaw ci ki nga xamante ne nag la ñu gën koo xam ci oustaz Abdou Aziz Ndiaye oustaz ñu ngi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, tawarakallah mbok yi ñoo ngi yalla di jiddi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di di len dalal fi mom moy jalle ah, tawarakallah mag ñi ci seen mbax ñu dajé fi ngir yalla ak ñaan ta xam nga ni li seigne babacar ci wax ni inna du'a silahul mu'minina ajal bu leen ko xeeb te soo guddi ak bëccëg ya ah man ñoo ngi lay fay soxna si sax tabarakallah di rafetlu si seen taxawaay ngir xam ne yéen murshid mooy ñi nga xam ne ñu ngi orienté nit ñi di leen jëlee si lëndëm gi ñu nekk yóbbu leen si leer kon tabarakallah fii mooy mooy càlle ah ñoo ngi lay fay soxna si bu baax a baax a baax Oustaz tey da ngeen fee woote li nga xamante ne mooy ziar ngeen di dippeeku ki nga xamante ne mooy seen maam Mamadou Ndiaye ñu la doon laaj lan moo ci sa xalaat ak naka ngeen di programmer li nga xamante ni mooy seen eh, kii bi tey journée bi tey. waaw Mamadou Ndiaye xam nga moom bu ko doon wax mën na ni ci ci góor yàlla la bokk ndax fii moom du cosaanam li ko fi indi mooy mag ñu ko fi indi mu yoroon fi daara tabaarakallaahu di waajur si sunu sunu baay Babacar Ndiaye mu sëriñ Moustapha Sy tabarakallahu ak Seydi Aji Malick Ndiaye ak rakam bi yëpp famille bi nag dajel fii ni kon ñaanal nit yàlla ñaanal si bopp la ñu daje fi ngir yàlla ak ziyaara ñaan yàlla ci àdduna bi def fi jàmmi àdduna ak alaaxira moo tax mbokk yëpp ñëw foo ne waa jóge fa ginnaaw yàlla ak ziyaara bi jóge ci eggox yi tàqalikoo tabarakallah nga xam ne bis bi tey jii dañoo am yaakaar ni parce que ñaanal nit ñaanal sa bopp la te dellu si yow waaw kon loolu moo tax mbokk yi jóge fu nekk tey jii ginnaaw yàlla ñëw ci bis bi ngir yàlla ak yi ji Mamoune Ndiaye boo demee si armeel mi ngi fii tëdd waaye nga xam ne moom fii di cosaanam parce que Mamoune Ndiaye leen wax ne li fi indi woon mooy daara alxuraan daara la fi yoroon ñu bari mu jàngaleen si mag ñi ne maam mu Njaay ñett dong la xamal mooy jàng alxuraan dem tool sëñ Babacar Si ñett yooyu moo doon métier jàng alxuraan dem ca tool yi tuur ak kër sëñ Babacar Si daanaka tabaarakallaaw si ñett yooyu la nekkoon ba tey nag reen di ñaar fukki at yi xam bi ñu commencé euh, ñaan ki ak léegi nga xam ne mbokk yëpp fu ne waaye jóge na fa ginnaaw yàlla ñëw fii euh, ci bis bi nga xam ne tabaarakallaahu Euh, kenn mënta lim mbooloo mi fi daje tey jii ginnaaw yàlla xam ne kon ñaanal nit yàlla rek moo am solo waaw ah, ñaanal ku faatu ñaanal sa bopp la parce que ñaan mooy ngandaay jullit kon loolu tax mbokk yëpp jigéen gox yi tàqali ko ñëw fii ginnaaw yàlla ak ziar bi nga xam ne ren mooy ñaar fukki ak ak ñaar fukki at bi ñu ko commencé ak léegi tabaarakallaa loolu moo tax ñu daje fii ziar. oustaz en nga wëlbatiku di jaar ñi nga xamante ne mooy sa ay tànki maam yaa ngi yor sa daara alxuraan fii ci dëkk bi di ko jàngale loolu ban yëg-yëg nga ci am ak ban conseil moom nga jox ñi nga xamante ne ñooy setaat yi nekk ci dëkk bi. waaw xam nga léegi léegi olof ni la sa maam sëtu koy jël mais dañ naan sunu maam ci alxuraan la xam nga euh, sunu responsable moral Serigne Moustapha Sy li mag mi yore ni yëpp yàlla da ko ko dénk la commencé sa silsilati ma yoro mahmoud si matuhu an cheikhina omar al mahruf bil karim bi li commencé ca yonent bi ba ci jaar li li ñu gàdd li ñu yor yi yëpp yàlla da koo dénk suñu sët sët boobu nga xam ne mooy sëtu Seydi Hadji Malick mooy Serigne Moustapha Sy responsable Moustapha Sy di woon Moustapha Sy daat ñun nag yàlla dogal ñi ngi nekk ndomb ndomb yaakaar naa di ngeen ko dégg mooy bërëb bi nga xam ne fi la Alaaji Malick toogoon bind tay si yëpp daara jëfe nekk ñun ji leen ko dénk nga xam ne ñun ay sët lañu fekke woon sunu maam waaye dégg nañu histoire am parce que histoire mooy nettali li passé xam nga alxuraan da lay nettali li wax la li nga fekkee wax la lu ñëwagul motax sunu mam histoire yu mag ñoo ñu ko wax ñu gëssu ko xamni ñittu yàlla la motax ñun sëti yëpp ñu taxaw ah ngir yàlla ñaan ci barkeem ndax bo démé ci armée li mu tëdd ah da ngay xamni ne li arab yu wax ni anta lil ard awwalan wa akhiran kunta malikan aw kunta abdan zalil ndax ko ma doon suuf nga yépp kon ñu am yëg-yëg ni tabaarakallaahu daaraam ji mi ngi fii si Thialé nga xam ne ay nit ko oustaz Mouhamed Ndoye moo fi nekk ak oustaz Waly ñoom ñëpp ay sëtam lañ ñu yor daara ji looloo tax nag ñu daje fi ginnaaw yàlla ñaan ci barkeem ndax yëg na ni moom nitu alquran la moo tax ñu nekk ca waaroo suñu waaju tàggat ñu si alquran bala ñu xam ko si néew ñu xam ko si mbokk mi. jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu kàddu yi. allahumma ij'al sawaba qira'atina hadhihi liman ja'altu sawaban li ijtima'ina hada wa atihi fil quran في الحد هي الساعة الواسعة والحجة البالعة والحول السابق والنور المستبين في اللحد المسلمين وجاء في الأرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتي بالقرآن الأمن يوم الفزع الأكبر ورقاء عند السدة وتسخير الميسان عند الخفة وتيسير الحساب يوم يوم العسرة والورود إلى الجنة والمعصرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فرجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل سوى ما قرأناه وبركة ما ترونه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك ما دائما إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين اللهم أوصل صواب ذلك إليه واجعل نورا يسعى بين يديه اللهم اكرم به مقامه ويسر به حسابه وداعه به ثوابه واجعل رقيق المختوم شرابه اللهم أنس به وحده وارحم قربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا معيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق